alors euh, beneen bi mooy liberté de la presse presse quatrième pouvoir jàpp nga ne la la liberté de la presse dafa sooxee bu baax ci réew mi ñaara ngi ci yoo xam ni fes bi ci jëkk fes naka nga mëne télévision mbaa rajo muy am ay événement yu xew ci dëkk bi mu koy def reportage nga ko loolu warul am ku ma sa gis loolu ci àdduna ban pays démocratique nga gis mu am ay manifestation am ay heure presse bi di ko reporter ñu ne ko waruloo ko reporter fu ñu ma sa loolu kooku entrave la à la liberté de presse nga ko comme que bàyyiwuloo ko dinaa tëj sa signal plus grave réduire au silence une presse teg nañ ci sunu bët ci fii journaliste wax loo xam ni yow wóor na ni li mu wax information bu mu jëlee la jox ko nit ñi sa information bi ay sources wóor la ngeen ko waru ko wax. parce que secret défense la. waaw si secret défense bi ngay wax génn na sax ci àdduna feneen wax nañ ko feneen journaliste wax lu la neexul nga jël ko arrêté ko tëj ko kon nag Sénégal ñu ngi egsi foo xam ni. dañuy wax journaliste yi da ngay wax lu ma neex mbaa boo ko waxul ou bien ma tëj la en tant que presse ou bien ma tëj la en tant que journaliste ci foofu lañ egg.